asalaamaaleykum mbokk internet yi amati mbégte jàkkaarloog yenn ci seen émission jàngat di ci ànd ak seen toppe ak seen xarit Abdoulaye Mbow ñu fas yenn waxtaane tey nag tolluwaayu réew mi ci jamono joo xam ni dafa mel ni réew mu feebar mag mu feebar foo laal rek day metti waaye ci jamono yooyu ñu seetlu ni élimaani jëwriñ yi premier ministre Amadou Ba moom ma ca turne ca Louga ak ca Ndar di waajal itam ay conseil des ministres délocalisés ca kafrine ca Kaolack ca fatik ak ca Kédougou ñu koy tudde nag tournée économique ci seen langage ñoom nguur mais nag mu doy du doon waar parce que dafa am ay dossier yoo xam ni mi ngi fi tege te boo ci xool rek mu gën a compliqué beneen bi mbirum mbënd mi xale yi mbëkk gis ngeen mi ngi mel ni tulleeg màlle gis ngeen ni itam euh, mbirum grève de la fonction publique locale Mohamed it ba université biga nga de ni ibi. Bajamoni a ibbi ba jamono yi rek ñuy wax ak ci étudiants yi génn nañu élèves yépp ca classe ni ñoom jangu ñu kenn du jàng ak ay problème yu dul jeex diggante Ousmane Sonko ak DGE ba ci mbirum liaison maritime Dakar Ziguinchor bi nga xamni juin ba légui dañ ko loolu yëpp di ay dossier boo ci xool rek mu doon loo xam ni doy na tubb ak mu bay tubay tubay ak mbubbu gouvernement bi waaye taxul ñu taxaw ci ñu ngi ci ay tournée politique tudde ko tournée économique Ablaye Mbow. Euh, jërëjëf euh, Seydou Momar ñu ngi lay nuyu di la siyaar baax euh, ñu ngi nuyu mboolemu internet yu ñu siraan à travers le vrai journal TV di ko tàmbalee itam si li nga xam mooy fàttali bu am solo parce que itam Seydou Momar.

faaw nga dem ci mairie yi fekk leen nañuy liggéeyee dans des conditions exécrables te itamit bu ñu demee ba toll benn niveau boo xam ne ne augmentation dafa am ngal Yo, yow mii augmentation dafa am Y'a war assurer le suivi mhm. Y'a war a le monitoring Y'a war a mën la faisabilité te ay père de famille Yo, yoo xam ne ay père yu doy waar yu doy waar te boobu ba léegi ñu téye seen mbir

ay document yu ngay wuti en tant qualité de citoyen ñooñu ñoo koy liggéey. Mhm. te jamono ji booy xool la ñuy gën a joxe moo di daanaka la ñu mënul bañal nit moo di certificat de décès. Mhm. waaye tey ji nii defe naa ni war nañ leen xool war nañu leen gis war nañ leen dégg war nañ leen saafaraal. lii nga xam ne moo di seen ay mébét te pendant ce temps là gis nga ko euh, gouvernement bi à travers la tutelle ministre des collectivités territoriales bu bees ñëw na on espère que Mamadou Diagne Fara bi nga xamne amna experience amna jar jar xana nak dina jël dossier bi à bras le corps pour véritablement mu jeex tak parce que itamit il y va de sa crédibilité ak fu jaar ak la xam ak lañ ko xalaatal ni mën nako ak liggéey kat yi nga xamne effectivement ñi nga xaar ñu safara euh, sen sen jafé jafé way Abdoulaye yakar bari wu ci dé parce que bi mu gouvernement bi tabbo mhm. lañu bari ni gouvernement bi ñu tuddé gouvernement de mission et de combat mhm. directoire de campagne Amadou Bala mhm. nga xam ni bi ñu ko tabbee premier ministre ba noppi def ko mu nekk kandidaa benn Bokk Yaakaar jaaxaloon nañu bëri mm-hmm. ñun sax ci ay jamono taxawoon nañ ci def ci benn vidéo mm-hmm. benn ojo mm-hmm. def ci waxtaan mu am solo ni li doon yoon mooy bi ñu demee ba la 9 septembre ba la ñu génn le président Macky Sall tànn ko mu doon candidat benn Bokk Yaakaar boobu la ko waroon yenni ci bokk gouvernement bi bu ko defee mu mën a wéyal campagne am. gouvernement bi am beneen jawriñ bu bees boo xam ne dina mën a doxal dossiers yi nga xam ne moom la ñuy ñu méngale ko woon nag ak li nga xam ne moom la ñuy gis ci yenn réew yi. maa ngi ko doon fàttali keroog Emmanuel Macron. jamono yi mu nekkee ministre de l' et des finances bu waa Hollande. dem ba ay jamono mu bëgg nekk candidat ci élection présidentielle ak mouvement boobu mu sampoon ñu koy wooye en marche. dafa tekki nomba tànkam. ci gouvernement at lu jitu élection présidentielle bi di am. pour me consacrer wu ci lool Niger gi rek nga xamni sori soriwuñu. jamono yi nga xamni ni Youssoufou dem na ba tànn ministère de l'intérieur Mohamed Bazoum. mu war ko wuutu ci bop rew mi. dafa tekki que tànkam mom Mohamed Bazoum. lu wees lu durum juróom benn wèr avant élection yi doon am en 2020 pour pour mën sobu campagne. ci campagne. ñu nemmeeku ça va wi bi ñu tabbee Amadou premier ministre nek chef du gouvernement. ci jamono jo xamni yi encore une fois mi ngi mhm. fonction publique locale. Mhm. mais lañu wax ci mbirum mbëkk mi. Mhm. mbëkk mi la dañuy rek quelques chiffres. né nañu ci xayma janvier en euh, octobre 2023, am na vingt trois mille migrants yoo xam ne bàyyeeku nañ ci waaxu Afrique yi. Mhm. jëm jubali Espagne. te su si bari Sénégal nee nañu quatre vingt dix pour cent yi. Mhm. maanaam ñaar fukki junni yi. Mhm. ay doomu Sénégal bu yàggul rek bërki démb dimanche. am na ñaari gaal yu bàyyeekoo fii Sénégal defoon cent soixante quatorze migrants. yoo xam ne wàcc nañ fële ci Hierro. réewum Espagne. nee nañu itam am na gaal gu fi bàyyeekoo fii Kayar. boobu ba léegi def na fukki fan ak juróom-ñett. ñooñu moom réer nañu kenn xamatuñ fi mu nekk. te li ci gën a doy waar ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw léegi sax ay mineur wala en famille sax léegi la ñuy demee. mais femme femme te loolu. jigéen gu wanu lor. li soxla Mimi Touré wax. mooy dëgg. déggoo gouvernement. def ci conseil présidentiel. déggoo gouvernement def ci conseil interministériel. mel mhm. ni mbir mu mel noonu catastrophe bu mel noonu. amul ci réew mais mais ñàkkal fayda la. ñàkkal fayda euh, li nga xam ne moo di phénomène bii di émigration clandestine te bu ñu demee nag Sénégal lu ñu mosul xam lu ñu mosul dund da nga daan gis ay jigéen waaye da nga daan xool yenn dëkk la ñuy jóge ay dëkk yoo xam ne daanaka dafa am crise Érythrée la ay Somalie ay une partie du Nigéria ak la présence de Boko Haram mais léegi dem nañu ba Sénégal jigéen ñu war na lor Momar dañuy bokk ci gaal yi dem nañu ba ñoo xam ne dañuy yor ay gune yoo xam ne daanaka ay nampatal lañu dañuy bokk ci gaal mais ça veut dire que kon phénomène bob ñun dañ ko war sur le plan véritablement damay war psychanalyste psychologue sociologue il faut naa war jàngat phénomène bii aujourd'hui ñu war a mm-hmm. est-ce que c'est dû à une gouvernance qui est tellement décrite à à tout point de vue surtout si li nga la déliquescence de l'état de droit la déliquescence liée véritablement à li nga les fondamentaux de la démocratie mm-hmm. est-ce que tiitaange moo tax est-ce que ñàkk ñàkk espoir totalement moo tax yaakaar ak maanaam yaakaar yaakaar bi nga xam ni président Macky Sall ak gouvernement am moom lañ ñu doon jaay bi ñu soog a ñëw bi ñu doog a ñëw ba naan APR yaakaar APR yaakaar googu nag moo mel ni lu tas bu ñu demee ba Lampedusa dem na ba la fay yegsi si migrant moo ëpp sax la fay dund si bakkan yoo xam ne fa la ñu mm-hmm. fekk baax ça veut dire que c'est c'est grave te ñun dañuy wax sax immigration clandestine waaye ONG bi nga xam moo di Fronteras xayma xayma xayma na si diggante janvier euh, bala ñu génn ak ak ak ak ak um, si si diggante ñaari at ba benn at daal lu mat junni euh, juróom-benn junni maanaam juróom-ñaar junni 7000. waaye defe naa ni lu mu calculer que ni lu mu xayma am na au moins 7000 doomu aadama yoo xam ne des nañu si géej gi mais kon bokk la si ëpp si doomu Sénégal la te lay dem la ñuy ñàkk c'est des bras économiques maanaam ñoo xam ne dañoo war a liggéey ngir Sénégal mën a atteindre émergence si wàllu agriculture si l'élevage, élevage si vous numérique si vous avez yenn yi yi war police gendarmerie dugg douane agent forêt mais nous lañ des di nous ñooñu lañ gens di sont te moment nous mais la jaar Nicaragua hmm. moo doy te la hmm. jaar hmm. commerçant Sandaga defal enquête nga si sen walu étudiants yi nga xam ne dañoo tëj seen i seen i université te daañu su ñëw léegi nii mais il y a même des étudiants yoo xam ne jamono ji jaar nañu Nicaragua te yoonu Nicaragua bi lay yegg ñaata la lay lay des yoon bi ñaata la la jóge Sénégal mënuñu ko xayma parce que itamit ko jël vol del dem raba jóge raba dem wala nga jël vol dem Madrid jóge mm-hmm. Madrid ñaata lañu ñu xay si xayma kooku moom li nga wax yaakaarul tax la waaw parce que buñu démé ba nit di dajale lu mat juróomi million jàpp juróom ben juróom-ñaar mu jarol ko mu jël avion jaar Nicaragua dem États-Unis mm. c'est parce que yaakaaram dafa tas ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. loolu mom moy li am mm-hmm. leneen li amit mooy gis nga recensement biñ fi defoon lu yàgg li mu wone mooy sénégalais tey romb nañ tuuti fukki million ak juróom-ñett te booy dee def xayma juróom-ñaar fukk ak lu teg tuuti. ci téeméer boo jël ci sénégalais yi. Mhm. amuñu trente cinq ans. Mhm. kon donc li muy wane mooy ndaw yi ci boppam. Mhm. la seen yaakaar jeex ci réew mi. te ginnaaw mbëkk mi leneen li koy wone ni ci di ci mbirum ndaw yi lajj am na ci. mooy li xew université Abdoulaye Mbow. loolu itam foog ñu taxaw ci. université. rawatina université Cheikh Anta Diop de Dakar. boobu ba léegi dañ ko tëj. depuis événement de juin. xale yi tey ñu ngi ci mois de octobre jàpp di dem novembre. Mhm. jànguñu. Mhm. te li tax ñu ni du ñu ibbi université. Mhm. mooy nee nañ ay liggéey la ñuy def ci campus social. moo tax duñu ñu ibbi université. te lé boo demee ci campus pédagogique bi. lépp yemb na. am na ñu dem sax ba ni li waral dëgg dëgg dëgg ibbi wuñu université. mooy dañuy ragal mu nekk foyer de tension. nekk foo xam ni. mbirum Ousmane Sonko mën na fa ni jëppet jóge law ci biir dëkk bi ba tax na moo tax ñu tëjee ko université muy lu doy waar boo demee ba sa jàng ndaw nga tënk ko ci ay considération ab Ablaye Mbow lu doy waar ngi non lu lu lu wax euh, passé na doy waar euh, y'a presque daanaka vingt ans bi may dégg professeur Penda Mbow di faral di doon wax ni université dafa nekk bombe sociale mm. bombe sociale non pas par rapport at ak ay considération politique mais par rapport ak la fay nekk si doomu aadama ak condition yi nga xam ne étudiants yi ci la ñuy jàngee ak condition yu étudiants yi di dëkkee xam nga kon boog même bu fekkee ne am nay jéego yoo xam ne tabax nañu lu yokk mbir yokk lal yokk dara mais ba tey université dafa nekk bér bu jafe-jafe doole jafe-jafe boobu jafe beneen jafe-jafe ñëw dolle ko ci mooy li nga xam ne tëj nañ ko te Momar xam nga lu gars dul xam étudiants yi day nekk ci benn cycle benn année année bobu dina ba année ci même année bi ba ci mais dégg na sax bu université ibé amna ci ño xamni tambali wuñu at bu at bi yegul won mom la n'a mom lañuy la bu yow c'est par rapport à des considérations politiques té nak le soubassement est purement politique mm-hmm defe naa ni le soubassement ne ni social ni véritablement d'approche pédagogique dëgg le nom, on a ay yëngu-yëngu yu amoon université mais quand même il y a eu de l'extrapolation extrapolation dañ ko yokk y a eu de la manipulation parce que la ñu ñaaw lu ñu ñëpp si tàq-tàq université mais Momar vice recteur université bi mu génnee waax defe naa ni ñu bëri téye seen parce que fini le bon birmi, mbir mi mais xaaju fa woon ni nga xam ne dañoo nekk si biir université bi bu ñu yëkkatee kàddu tamit xaajul yegg fi nga xam ne la ñu yóbbu mbir yi. dañ ko réyaloon dañ ko réyaloon. pour wane ni yàqu-yàqu yi law na ci dëkk bee mel noonu ba pare bëgg bëgg si andi ay mbir yoo xam ne effectivement toujours connotation politique. Mm. mais bu ñu demee nag ba tëj juin juillet août septembre octobre ba ñuy dugg si mois de novembre ak li nga xam ne moo di jafe-jafe pédagogique yu nekk biir université mais au nom de quoi ñu war a wéy di tëj université. Mm-hmm. je pense que aujourd'hui li dafa war a nekk priorité jàng enseignement supérieur dafa war a war priorité la nga fay former ci médecin la nga fay former ci pharmacien la nga fay former ci géographe historien sociologue ak yu demee noonu ak ay juriste ak ay économiste mais Momar comment se fait-il que dans un pays normal ñu war a mën a yegsi ci li nga xam ne mooy tëj ba pare maa ngi gis benn communiqué conseil d'administration COUD balaa ñuy ubbi campus social eh, bii bii boo baa baa ak yooyu daal mm-hmm. xam nga comme condition def naa ni il faut quand même que ñu andi li nga xam sérieux njàng du caaxaan dans les pays de l'est boo le coup dans le bloc de l'est dañ la doon wax l'éducation et la santé sont gratuites hmm. lu gratuité boo amoon parce que lay baaxal réew lay dëggalal réew lay jox réew taxawaay ak jëmm ak si wàllu koom si wàllu lépp mooy jàng ju yees jàng bu baax hmm. rawatina nak bu ñu nee enseignement supérieur Ablay ñu woy ba légui ci jafé jafé. Hmm. xam nga wax nañ ci fonction publique locale wax nañu ci immigration clandestine maanaam mbëkk mi wax nañu itam ci grève UCAD grève UCAD mi nga xam ne ibbeegul boobu ba léegi nañu wéy rek am na beneen problème boo xam ne itam mi ngi fi tege ni tege muy mbirum liaison maritime Dakar Ziguinchor nga xam ni depuis événement join yi bateau jógeetul port de Dakar jëm Ziguinchor te ñaari bateau ñoo ko daan dem mu jur nag gàllankoor yu rëy ci wàllu koom-koom d'abord

ne dañuy ut juróomi junni signature pour nag wax gouvernement bi lan moo waral boobu ba léegi ñu téye liaison maritime Dakar Ziguinchor ak li mu jur ci wàllu koom-koom ci diggante bi. ba mais euh, waxuma la sax juróomi junni ñoo ñooñu bu ñu bëggoon fukki junni signature sax am dañ ko war a am. Mhm. te gëm naa ni Sénégalais yi daañu ko signé mais xam nga fan la gënoon jafe mais jamono ji nga xam ni euh, euh, tabaski jot na. yoo mhm. ko fàttalikoo tuuti nga xam ni. Euh, Sénégal nous nous ferons des déplacements déplacement tabaski pour dem fekki say mbokk say wayjur sa soxna sa boroom kër ak say dom. ni gis nga ni nous Nous parce que nous si ci woto ne donc je pense que ce qui est nga liaison Bobu Té bateau diggante Ziguinchor ak fi nga xamné ne moo di Ndakaaru def naa nag ay la yëwoon dañu toll benn jamono jo xamné ne lépp li nga xamné ay calcul la encore une fois parce que tamit ñu bëgg ñu bañ gis nga moomaat le fait politique mënuñu ko dingi ci dossier yoy mm-hmm. dafa dafa dafa pesant dafa dafa dafa dafa leer def mm-hmm. naa nag dañu toll benn dëkk benn niveau bo xamné nak autorité ño wara jël sen responsabilité mm-hmm. xamné ils ne sont pas les autorités d'une zone par rapport à une autre zone dañ leen fal véritablement ñu nekk des autorités de la république du Sénégal. Mhm. nekk nag autorité de la république du Sénégal mooy tenir en compte lépp li nga xam moo di bëgg-bëgg ak mbañ-mbañ ak jafe-jafe képp koo xam ne mi ngi ci biir Sénégal où qu'il puisse se trouver et quelle que soit la localité par ailleurs. Mhm. et je crois bien que war nañu nag jël mattukaay ak mattuwaay yi war. li nga xam ne moo di liaison maritime Dakar Ziguinchor boobu reprendre parce que tamit ñiy jaar ci yoon bi sonn nañu. Mhm. lajj nañu instant yi nii ay borom ndigg ñu siy juddu. Hmm. ay borom tànk yu métti ñu siy <laughs> juddu. rhumatisme ak lu ne ndax yoon gu métti je pense que lu yoon gi baax baax lu goudron bi liis liis liis defe naa nag day baax ñen ñoo xam ne jël bato bi euh, traversé si si si loo xam ne du coono defe naa ne moo gën te encore une fois activité économique bi surtout moo si ëpp solo. xëy na sax léegi tane na tuuti. Mhm. am na tan gu te am. Mhm. ndaxte am na ay jamono yoo xam ni bato yi dañ taxawoon. Mhm. dakaar dem dikk. Mhm. wala dem taxaw. Mhm. moom muy ñaari mbir yu ñu boole woon. Mhm. ba nga xam ni li lëkkale woon Dakar ak Ziguinchor daanaka amatul woon. kon nag jot na autorité yi. lét maa ñu firi Sénégalais yi. par rapport ak arrêt boobu ñu arrêté. Euh, bateau yi nga xam ni ñoo doon jóge dakaar di dem euh, Ziguinchor. ñu ñëw nag ci li nga xam ni itam mooy ay di jàmbat. muy problème mu politico judiciaire yi ba tey. ak mbirum Ousmane Sonko bi ñu radié. ci mhm. fichier électoral yi. Mhm. ñu duñ ko jox fiche de parrainage. Mhm. ak li ci tukki aussi ci wàllu àtte. ci tribunal de Ziguinchor. ba juge Sabassy Faye jox ko dëgg ni dañ ko ci delloowaat. waaye loolu taxul DGE jëfe ko. ba nga xam ne sax communiqué biñ ci mujj génne àjjuma bële. mooy ni fi ñu sukkandiku ñoom lankal ay dafe jox ko ay fiche de parrainage ginnaaw bi mu fa demee ñetti yoon ànd ak huissier. mooy. gouvernement bi dañu japp ni dañu duggal ab recours te bañu ñuy génne communiqué boobu àjjuma gouvernement bi tax duggalugul won recours bañ nañ ko ba ci sen communiqué dañ naan le gouvernement aurait démb altiné ci lay gouvernement, ci lay agent judiciaire de l'état bi soo duggal recours te même recours bobu ñi sen xam-xam match ci walu yoon né nañ recours bobu sax c'est pas suspensif parce que dafa am ben article nous koy wax 74 2 bu loi organique bu cour suprême bu ni ci ñeenti anam rek ngay duggal ab recours ci ab décision cour suprême mu suspensif mo xam ci walu expulsion d'étrangers mo xam ci déclaration d'utilité publique mo xam ci extradition wala bok ci litige yo xam ni dafa joggé ci élection yu laal gox yeeg gox goxaan yooyu rek ngay dougal recours mu suspensif mais ginnaw ñent yoy recours bo mënti dougal du suspensif té firnde li mooy bi fi tase parti Pastef même bu fekkee ni wa Pastef dougal nañ recours terewul ñu appliquer ko immédiatement ba nit ñi sax bu ñuy wax mbirum Pastef dañ naan ex Pastef té pourtant recours dugg na waaye lu waral nag bi yoon décision de justice ñu jël ko jëfewuñu ko ba mu jur tool lu mel ni tull ak màlle ci biir Sénégal. waaw mais euh, loolu defe naa ni euh, euh, daanaka tu n'as pas besoin d'être juriste Jarou ngay jang droit pour mën xamné xam ne effectivement fu mu toll nii. deug dëgg dëgg dañooy salfaañe ak ak yeleefu ben nit bo xamné ne ni daanaka Ousmane Sonko la tudd il faut le mm-hmm. dire parce que mom lo concerné par rapport ak li nga xam moy dossier mais nak li gën jaxal jaaxal nit ñi mooy DG moom dafa jël place u agent judiciaire de l'État si xelam ak ci xolam mm-hmm. DG jël place euh li nga xamné modi euh, euh, euh, conseil constitutionnel déjà il place où les effectivement rôle Mais Sénat Sénat donc déjà comme wala wala état kon eh, banque samay mais xam lu ci mhm. Modi, ministre de ministère de l'intérieur ñu bari wax comme diplomate la avocat dina tempérer dina dialoguer mais mom ñewam nim ko marqué def naa ni nak ku xalat am espoir ci processus bu lèr processus bu transparent Li, def naa jàngat la go xamné ne effectivement dalay yóbbu fi nga xamné ni pour nga yegg ci kóolute dina jafé mhm. parce que bu ñëwoon marqué territoire waye nak nag marqué territoire moy administration bu nek ci tutelam direction générale des élections mo bagn exécuter décision de justice mhm. waaye nag Mohamed est-ce que guleet la fii cour suprême génnewu fi lo xamné dafa soxal élèves maîtres yi. ministre bi l'intérieur mo taxaw ministre de l'éducation mo taxaw. en 2016 waaw moo taxaw ni man exécuté wu ma 690 élèves maîtres. mo taxaw xam ni ministre Serigne Mbaye Cham ci jamono yi. def ci jëlone décision. ni seen admission. wa ci centre régionaux de formation du personnel. de l'éducation dañ leen koy bañal parce que dañ defone fraude. wa mu lank carré. ne du ko jëfé waaw mais li ci raw sax moy wa Mujigi, gi majorité bi dañu ni ku koy parce que dañu dem ba assemblée. defal ko motion de soutien. Mm-hmm. Mm-hmm. mel ni ku koy mm-hmm. ak di ko ci vous gi mu exécuté. décision cour suprême. est léegi kon kan commencé maanaam ñàkkal jox woor ma li nga xamoo di justice. exécutif bi exécutif donc de ce point de vue là dañuy rek. Euh, jarul nga naan damal seetaan maître dout noy jarul nga naan damal déglu maître Adama Gueye mm-hmm. jarul nga naan damal seeti kee wax si wàllu wi parce que lii kuy citoyen boo xam ne jàngoo jàngoolu xamuluñ la luy wàllu droit sax buñ la ko expliquer da nga xam ne mbir ci yoon mm-hmm. et de ce point de vue là je pense que nag

waroo ak kàddu yi nga xam ni moom la président de la république Macky Sall. yëkkati woon ngoon gi muy jàkkaarloog sénégalais le 3 juillet. di leen biral ni du nekk candidat. lam ci taftaloon. mooy li ko fi defee. fii ba ba muy jox lenge yi ki koy wuutu. le 2 avril 2024. dina fexe ba bépp décision de justice bu ñëw. ñu appliquer ko avec fermeté waaye xanaa boobu xëy na dafa sóorul woon. li bës a ngi ñëw. Mhm. dina am décision justice boo xam ne day favorable Ousmane Sonko. Mhm. défavorable au gouvernement ñu war ko appliquer. Mhm. te appliquer wu et puis lu gën a garaaw Mamar mosoo gis doom ju mag yaay doom ju mag yaay. mais DG gi communiqué fu mu génnee <laughs> mais moom 11 juillet la wax 11 <laughs> juillet Ibrahima la Major Fall le 23 juillet la wax que ni la condamnation n'est pas encore définitive. tout à fait donc gis nga ni euh, mbir la yoo xam ne daanaka. dañuy salfaañe yoon salfaañe koo xam ne dafa flagrant te loolu itamit dafay gàkkal deru justice dafay gàkkal li nga xamoo moo di deru démocratie te xolal si gouvernance su président Macky li yëkkati kaddu si wàllu borom xam-xam de tout secteur d'activité nag ay nit yu ràññee yu ñu ràññee si Sénégal ak biti réew xoolal li bind si wàllu bataaxal jagleel ko li nga xam ne moo di wàllu démocratie li nga xam moo di wàll état de droit xool ko si gouvernance président Macky Sall nga comparé ko ak guvernance Senghor gouvernance Abdou Diouf gouvernance su Abdoulaye Wade ba tey jii nga xool li bind si diir bu gàtt gii ñaata nit ñoo lëkkaloo bind ay li nga xam ne moo de ay bataaxal la ko si li nga xam ne moom la nit ñi di ñaawlu di ko yëkkati si li nga xam ne fa la ñu yegg vassalisation daanaka la d'une administration euh, pratiquement politisée à outrance tey ji ni directeur général des élections turam am na fu mu yeggoon ca Ndeela Fall waaye tey ji ni xoolal luñ ko joué bu buñ ko joué ak tey fan la touram di meuna dem dans dix ans dans 15 ans ci walu histoire. Mhm. def na ni il faut quand même savoir dire non pour pouvoir dire le oui de vérité et aujourd'hui malheureusement le oui de vérité moo ñu manqué si li nga xamné ne di l'exécution de certaines décisions parce que tam bu nane décision de justice mais kon bok est-ce que juge bi nga xamné mom mo ni Ousmane Sonko dama koy placer sous mandat de dépôt parce que ànd ci le procureur wax su par nak kon bok dañuy andi li nga xamné ne di deux poids deux mesures. Mhm. est-ce que fi dañu wara fee dañu war a bañ fii dañu war bañ fee dañu war a nongu je pense que il faut quand même que loolu yëpp ñu taxawal ko te rôle boobu nag kii nekk jëwriñ bi njëkk di amadou ba da cee am rôle boo xam ne da ko see war a parce que bul fàtte ni mooy candidat benn mm-hmm. te lii dafa bokk si bilan bilan googu nag buñ ko si duutee baaraam laaj ko si question defe naa nag euh, bëggatuñu dégg réponse yi nga xam ne que yor réew mi jamono yi moom la moom lay yëkkati te mi ngi waaj a dem defe naa dafa am leneen yu yees lu bees loo xam ne xëy na sénégalais dañ koy mën a dégg bëgg ko dégg si li nga xam ne moo jëm si gouvernance économique gouvernance démocratique mais également gouvernance par rapport à l'état de droit ñu yeexgale rek li nga xam ne itam jur na jiixi jaaxa ak njàkka rek ñi nga xam ne amuñu yaakaar trop ci teewaay bi nga xamni mom la Sidiki Kaba teew ci ministre de l'intérieur ci jamono joo xamni ne ñu ngi dëgmal élection mm-hmm. lu weesu ni DGE taxawé ak jëfin bi ñuy def nga bexal ni dafa melni ni jaay doole ak ma tay da cee feñ gis nañ ni même ku djegi ñoñu ñuy woyé ñom opposition responsable mm-hmm. uteeg peut-être Ousmane Sonko bi nga xamni namu na doon opposé neexu len ba limu ko jural mu jural ko ko ñoñu sax buñ jógee wacc ci terrain bi di outil parrainage di mobiliser dañ leen koy aaye def nañ kaawu Malick Gakou def nañ ko ko Kébémer def ko Louga mhm. gis nañ kaawu Khalifa Sall mhm. moom it gis nga niñ ko def keroog Fatick mhm. gis nga niñ fi defoon itam Abdourahmane Diouf et cetera et cetera même ñi nga xam ne dañuy jóg sax yoon may leen ñu uti ay parrainage dañuy am gàllankoor ak préfet yeeg gendarme yeeg policiers yi. Mhm. ci yoon bi. Mhm. loolu itam tey na xel. Mhm. ci élection yoo xam ñu ngi ciy dëgmal. ñuy xaar administration bi taxaw taxawaayu njaaxaan ah, naay Abdoulaye. ñu tëjee foofu boo boo boo gisee li Oya tey dessiné. waaw def naa ne <laughs> c'est une parfaite que dañoo gis candidat Amadou Ba nekk ci boulevard boo xam ne lépp yaatu lépp leer. lépp dégagé kese gi ci dawal ñu gis benn tali bu xat boo xam ne ay barrière ko tëj ñëpp sumbaxloo foofu. donc loolu dafay firndeel ni rek effectivement perception boobu te policier bi ni leen ah, waaw ngir ngir yoonu pale bi waaw waaw mën a leer dal di leer nañ il faut que yéen ngeen taxaw <laughs> nii voilà bàyyi kii mu jàll ba après 2024 waaw mu ngi noonu je pense que loolu dafa naa ni illustration bu leer la et de ce point de vue là jàpp naa ni nag euh, bu ñu foogee ni dañu nekk di rendre service au candidat de Benno ñu ngi nax seen bopp parce que ce rythme là nous saurait être maintenu jusqu'au 25 février si mënul ne dina am benn moment boo xam ne day am cassure te cassure boobu noonu dafay fekk candidat bi si wàllu boppam nañ koy xalalee ak nañ koy jëfale nañ koy jëfale defe naa ni moom si wàllu boppam dina lésebe mm-hmm. te itam bul fàtte l'effet boomerang te ñu ni ñi ngay gàllankoor euh, bul fàtte que ni bu ñu yeggee si examen de passage bi maanaam parrainage bi moom day am mm-hmm. recomposition mm-hmm. recomposition boobu nag candidat boobu kan moo koy nongu fekki si par rapport yi nga xam ne moo di les

diggante fi ba ba dem en au mois de janvier fi ba ba ñuy dugg ci pré-campagne di tok di xaar fi ba ba ñuy dugg ci campagne donc il faut quand même que nga bañ créer beaucoup plus de frustration si sénégalais yi la xamné ñi ngi gis di dégg di seetaan li xew yow bo joggé ñu bala nga def loola neex keneen bu joggé né damay seeti Malick ndjay wala Fatou ndjay ñu la dédé do fi jaar dañ lay bloquer 6 heures de temps ñu bloqué ko xalé Sall mm-hmm. Mm-hmm. mais c'est trop lolu sax mën na créer phénomène de rejet parce que sénégalais yi nag nangu nañ lu ne ba mu des kuy néewal nit doole. Mhm. te réew mi nag li nga xam ni moom mandargal gouvernement bi mooy mbiru kumba am ndey mhm. ak kumba amul ndey mhm. te loolu nag mel na ni lu commencé fëpp lool. ci li nga xam ni moom la ñu dëgmale campagne bi. jëm ci élection présidentielle. Ablaye Mbow gis nga réew mi donc. foo laal day métti. mu mag bu feebar fu ne ngi jax-jaxe wax nañ mbiru mbëkk mi wax nañ mbiru liaison maritime Dakar Ziguinchor wax nañ mbiru université bi nga xam ne boobu ba léegi tijjeegul wax nañ fonction publique locale ba teere ci tey ci dossier politico judiciaire ak aussi li nga tàmbalee sa wax jigéen ñi nga xam ni te foofu sax la ñuy daanele ñu ngi ci prison yi ñu jàpp leen ci anam yu doy waa ñu dem ba mu jar leen ñuy xiifal seen bopp kooku nag jar na ñu taxaw ci ci saafara lii daal la gouvernement campagne campagne campagne même bu sénégalais yu sax gouvernement bi du directeur de campagne nañu gestu sénégalais yi ak yi sur la table te bu ci nekk rek am ëpp farata sa morom lañ leen émission beaucoup de plaisir ak xarit di leen jox di yi rek ñu Thank you.